despite evident opposition, particularly on the areas of security. Uh, one thing all Gambians can agree on is the current government's effort in ensuring a uh, Gambia with better roads. We are on the streets of Banjul to engage civilians and see how they feel about this. amoon nañ jamono coono bu metti ci lañ nekkoon parce que fii ñu taxaw nii tey amoon nañ jamono boo xam ne fii oto sax mënu fee taxaw waaye tey waxuma la sax fi ñu taxaw nii tey de waaye Banjul tey waxum yëpp laa wax tey liggéey bi nga xam ne moom la ko Adama Barrow liggéey réew mi yëpp technique ci seen bër ak ñu doon ji ci réew mi sax. a ah, nafa warata baake a nafa warata parce que waato min tambita mbiyagal on ne ko mbeɗol ma tara ɗum up to standard amam mbeteyani ɗum bare sañi alhamdulillah ɓe ñaami alhamdulillah fo ku ka ka ka ka service mbeɗo na pareta ni ya ɓulata par que birin mbeɗol pareta mammede bare dula bi je sañi ni tata ka tara ya sin dula jama hani ñim mbeɗo ni kilinta ala fo ñaato abi jeele ya sin sometimes it is this nawek workers jiole ka fenke duma ina sin pour ka dada ni parata ya tuje wo nyama yaje andu mbedo ya lon ko hani sanji kile ma so tofolo a ah, wo bi jele bare ala nafa wa ah, kuma ya ta warata ise tamano gently ite nola ite ite boy la fanan wo wo wo mu wo nafa warata bake well tali mom appreciate nan ko lot change na lot because flottine yu fi daan xew ak yaaw yaaw yu daan xew si kër yi gowman ñu am ko district hmm. so dama xamul daal naka la ñoo def daal déggoo nguur gi ñu jàppale ñu tamit bi ko gaa ngee def nag ñu ngee samp ay guy waaye ñi ñi tam dañ war a jàpp si guy di ko nourris pour mu mun a jóg daan ñu def ko sabunti kër yu doon géfa foog ne nako ko government ñëw roose yooyu noonu suñ ko defee sa bunti kër da nga wara take responsibility because every day den dee claim ama Gambian ki du Gambian xam nga te def lolou wara tax ñu ne yo Gambian nga den wara take ownership dëkk bi mun dem kanam. yoon bi waaw yoon bi ah yoon bi kese ñu ya ni li Adama Barrow defagu fi dara yoon kese ñun ñu xëy suba ba wo tali bi yaa ngi sant dëkk bi dafa stress dëkk bi nekkul di dox dara nekkul di move, nga lu mo lak so gisee ya boy yi nekk boy di gangs nit di tapole nit liggéey mo amut da nga la ma la expliqué fii booy am im dañu bëgg a suba dem def ci dara wa suñ toogee Gambia amul ben possible way foy mëna mégué xali xaalis sista ñu waxante dëgg te ya taa la san so li mo wara so gisé bandi yu bëri yeb li la wa su fi gars yi of jobs da nga xëy suba doo xoolal doo dégg kenn xool na posi nit sagatuma ken di rapino nit so tali bi la la expliqué Adama Barrow amalu ñu ben jëriñ tali bi amalu ñu ben jëriñ ñun wa Banjul na créer ay jobs yu si mën a dem liggéey waaw ñun loñu amal njëriñ mooy gën ay tali ñun tali ya fa tax ñu wax yaakaar nañoo dëkk fii ñàkk tali jamono Yaya Jammeh sax moo tane jamono Adama Barrow bilaay doon naa gis fii Sacha waaye booyee dañoo liggéey di am xaalis soo Adama Barrow moo loolu defaluñu dara waaw man ma naxari si tali bi waxi tali bu gars yi topp nañ bàyyi waxi tali bi ma ne nañ ko fi teg pour mu xanaa Adama Barrow poosam la liggéey tali loolu laa laajal ma ko ndax poosam la liggéey tali poosi Gambia poosi Gambia ni la liggéey tali defagul fi dara bu mu toogee ba léegi. This is Ellen Street. It appears the Banjul City Council cleansing exercise team are at work. dëkk bi ni meloon bu njëkk ak léegi daal changé ne bu baax wante moo tax ñu nag ñu ngi góorgóorlu ñu seet seetal yokk wér-gu-yaram soo léegi sant yàlla ba mu de dafa am différence bu baax a baax nga xam ne liggéey time boobu liggéey kii bi yoon yi baaxul dafa jafe bale bi dafa jafe mais léegi tane na ana mu des su fekkee ne gars yi génne nañu suuf si ba pare da ngay gis ne naka laay liggéey bi gën a yombee waaw time boobu liggéey bi bu tali bi nekkoon kii bi bu baawutoon liggéey bi dafa jafe This is the Banjul garage. Follow us as we engage the drivers on how they are faring here. ñun dëgg yoon bi mu ngi mel ni ñun la ko defaral ñun chef de garage yi nekk Banjul fii dafa mel ni yoon bi ñun la ko defaral because ñun liñ daj ci koñ bi fii depuis time yi Yaya Jammeh big time yi time yi Jawara sax fekk tane na tali bi tane woon na waaye time yi Yaya Jammeh 20 years yëpp yi ñu fi def yëpp ñun at bu nekk. dañu jëndal lu mot 5000 7000 her ci suñu xaliss bi diko soti ci koñ bi fi Grand Street ñun su nekkuton ni ñun chef de garage yi nekk Grand Street fi ni kon ben moto da fi doon mëna jaar fi waaw fi ñun yalla ak ñun tay so gisé auto di fi jaar lañ ko defar so gisé auto di fi jaar jaar tay yalla ak ñun ñun sax ñu ngi ñu government bi ñu ko santa diko jërëm because yon bi dafa melni Yun ñun chef de garage yi la ko defaral ndax ñun driver yi sonnoon nañ ci mbiri yoon ndox bi yaq suñu auto yi organe si yépp yàqu yag nañu sonn ci mbiri yoon wax deug yalla dañ ci contane trop trop trop trop si defar yoon bi légui mom suñu moto yi dina mëna daw si tali bu ba metti won na nak biñ koy defar police di ñu baare wëri leen jaari leen ne metti won na waye fim tonni ñu ngi koy enjoy bu baaxa baaxa baax du driver du koy dox ak tank du ko yore oto ñëpp gërëm nañ Adama Barrow te sant ko te da ko ñaanal yàlla fi mu jëm fi mu bëgg réew mi xàgg yàlla na fa yàlla xàggale réew mi te yàlla na ko fa yàlla jàppale it ndax xam nañ ne lim ñu wan ñun fi mu ñu fi mu lim ñu wan ñun xam nañ ne Adama Barrow ku ko topp dana dana def lu ëpp lii ñun xam nañ loolu ndax ñun ñoo nekk fii démb balaa tey da ñëw nekk nañ fi Jawara ba mu jógee fi dem ñu nekk feeg yaay jame ba mu jógee fi dem ñëpp kenn ku ne sa liggéey xam nañ ko amul kuñ amul dara liñ ciy ragal a wax wala liñ ciy bañ a wax xam nañ ko parce que ñoo ñu ma fi fii te waa Kóorot gii kenn mënu foon a dugg ak oto biir Banjul fii ki waxi noppi la fii ñu taxaw nii sax moo gën a noppoon ci dëkk bi te fii la daan àdduna bi yëpp daan wàcc képp ko dugg moto Serekunda wala nga dugg moto biir Kaama wala nga dugg moto Basse bu Sooma fii lañ laa wàccee. waaye te ku wàcc kontaan nga te loolu yëpp gannaaw yàlla yonent bi sax liggéey baru la kon ñun Gambie war nañoo kontaan war nañu sant yàlla te gërëm yàlla gërëm baro. That was it on the roads here in Banjul. Reporting for the Fatu Network News Review, I am Fatu Kamara.